gannaaw euh, li yees ci actualité bi ak dossier mi nga xam ne mooy dossier Sweet Beauté euh, ñu ngi doon xaarandi li nga xam ne mooy euh, doyen des juges ndogal bi muy jël finalement dafa topp réquisitoire bu procureur bi mi nga xam ne finalement doyen des juges jël na une ordonnance de renvoi aux chambres criminelles pour dal di def jugement ci affaire boobee lan moo ci sa réaction waaw sama réaction yaakaar naa ñoo ko toppandoo. Mhm. depuis mbir mi xewee ba léegi. Euh, def naa ci ay émission yu bëree bëri à travers Sénégal 7. Mhm. waxtaan nañ ci budul benn du ñaar waaye la muy la muy wone rek mooy ni. léegi mbir mi tegatuñ ko ci règle de jeu. Mhm. dañ ko teg ci mbir moo xamante ni mbirum maa tey la ñuy doxal. ak mbirum. Euh, not doomu aadama ak euh, mbirum euh, yàq wàllu démocratie bi nga xamante ni lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti Sénégal dese woon na ko amoon na ko loola nag lu leer la euh, moom la ñu wane tey mais man fa ma taxawoon ba léegi moom lay taxaw di ko wax tey wax ak àdduna bi yëpp di wax ak waa diaspora bi yëpp mooy ni mm. ku dul subhanahu wa taala mënul tere président son Sonko nekk candidat kudul subhanahu wa mënul tere président Ousmane Sonko tey jiite Sénégal moo xam nga ame sey say afarit nañu jënd quarante cinq gëléem Abdou Khader nañu jënd quarante cinq gëléem fois cinq wala fois dix wala fois trois mhm. ñu dugg ci département bu nekk def fa seeni sacrifice tasaare ko pour tëj làmmiñu askan wi je pèse bien mes mots mhm. dama ne nañu jënd quarante cinq gëléem wala lu ko ëpp mhm. dugg ci département yi tasaare ko fa ray ko saraxe ko wala ñu gas ko fa suul hmm. pour tëj làmmiñu askan wi danañ xam ni askan wi lay tëj seen làmmiñ tuuti nañ ci ñoom incha allahu taala loo bëgg wax foofu beneen ci dafa mel ni dafa loolu am la wala mais lool loolu amul lu ñuy werante te ki ko jiite taxaw na ni carrément wax na wax na lu wér te wóor ne day songu Ousmane Sonko moo xam mu jële ci lu neex wala mu jële ci lu naqari mais loolu nag Mm-hmm. moom xam nga euh, la daloon firaaw na rek. moo koy moo ko moo koy yoon. te am na loo xamante ni mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. Mm-hmm. lii may wax nag lu wér te wóor la loo xamante ni fu tegu la la ca des nag. Mm-hmm. mooy ni sénégalais yi nañu xam ni Sénégal sénégalais yee ko moom les quinze millions d'habitants. ñoo moom Sénégal ñooy décider. ba ci dix huit sax ba ci dix millions ah. ma ne ba ci dix huit millions sax. ba ci dix huit millions ñooy décider. Mhm. ki nga xamante ni moo leen di jiite ñooy décider ki nga xamante ni du leen jiite. Mhm. te décider nañ ni Macky pare na bokkatul la jiitu moom mu wax ci kàddoom ne bokkatuma. Mhm. ñii taxaw naan waaw waxagul ne day bokk waxagul nangam nangam. am na jëf yoo xamante ni bu koy jëf mooy jëf yu wane ni tey man damay bokk far force wala man su ma fi jógee kaman neex moo fi toog mm-hmm. loola nag bu ko yaakaaree bi boo mu seeti neneen lu mu def te insha allahu taala mm-hmm. biir palais boobu président Ousmane Sonko moo ko fay fekk si boo Abdou Khadre ma delloo waat xelu nit ñi nañ delluwaat ci yoon dégg mm-hmm. naa maa ngi fii bitim réew dégg ñuy wax ni waaw mën nañ dem sax euh, pour le l'instant arrêter Ousmane Sonko comme ni ñu def Dadis kamara Mm-hmm. wala ñu def ko résidence surveillée. Mm-hmm. ba nga xamante ni taxawal nañ jàkkaarloogum gu mu war a jàkkaarloo ak àtte euh, bi ko war a àtte mais dama ni. Mm-hmm. loolu ci boppam dafa mënul nekk. beneen bi ci des dafa mënul nekk bu fekkee ni teg nañ ko ci yoon. mais nag gis nañ ni mbir mi tegootul ci yoon dañ ko teg ci doole ak force ak bëgg a xajamal cere yi ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak cere askan wi yëpp muy Sénégal. la ca des nag wax mu egg dafa ko moom sénégalais yi sénégalais yi jóg leen debout su ngeen rate lii ba ñu téye Ousmane Sonko ba dugal ko foo xamante ni dootu fa génn amul kenn laa wax kenn damay maas noon gi amul kenn koo xamante ni tey fi ñu bëgg Sénégal egg fa tey moom mën na taxaw am fulla ji ak détermination bi ak am capacité bi ak fit wi pour mën ko eggale fi nga xamante ni moom la ko président Ousmane Sonko commencé tey loolu euh, euh, fëgg seen furi fara yi ba toll nañ foo xamante ni ñoom euh, yaakaar naa ni li ñuy def moom signé nañ ko ba pare rek mooy ni seetuñu yoon seetuñu lu dul yoon danañu songu Ousmane Sonko soit ñu dugal ko ci kasu bi teg ko wala ñu rey ko avancé dem mais loola nag waat naa ci alquranul karim ne xoolal suñ ko naree def danañu rey sénégalais yu bëree bëree bëree bëri soog a jaar ci seen kaw def ko. d' mais Imaam wax nga ko nee nga euh, ak lu mënti am kenn mënul tee bu dul euh, suñu borom mooy euh, Ousmane Sonko kenn mënu ko tee doon candidat jamono ji nag ñu ngi dem ci procès au cas où condamnation am wala boog procès bi. teniru ba ñu jël ba juge bi daal di juger peut-être condamnation am bu boobaa naka ngeen di def. waa xam nga loolu duñ fa egg. xam na man li ma gëm. Mhm. man li ma gëm duñ fa egg ak ñoom. ñoom am nañ seen plan ak seen calendrier ñu ngi koy déroulé mais ñun am nañ suñu plan ak suñu calendrier. lu mu doon déroulé lu doon. duñ ah, lool loolu tamit <laughs> man du du ma ko wax. Mhm. su ma ko taxawee wax damay trahir. beneen bi ci des kal du jariñ lu dul xalaat. yow li nga mën a am mooy laaj ma ne ma ndax. Mhm. bu juge bi defee lii ngan ngeen di def mani la duñ fa egg. duñ fa egg ak ñoom parce que xam nañ ni teguwul ci yoon xam nga juge balaa muy décider di def leen wala muy àtte ni di ko condamné. Hmm. la muy àtte da koy teg ci yoon. mais xale bu taxaw ne fukki nit ak juróom-ñaar tëdd nañ ma nga ni doo leen woo médecin bu taxaw ne euh, visite visite xaw ma nu ñu ko tuddee ci certificat médical bi hmm. amul existé wul nga jéggi loolu ñu indi la rapport boo xamante ni enquête boo xamante pré préliminaire la xaw ma bu gendarmerie nga jël ko dëgg te ko teg ko ci suuf ba pare nag di jël see gileem di rey pour tëj gaam làmmiñu nit ñi. Hmm. pour tëj làmmiñu askan bu ñu yaakaare ni tuur deretu gileem wala tuur deretu njuldi wala tuur deretu jànq mooy tax ñu am li ñu bëgg ci ko kaw président Ousmane Sonko ndax nañ seen bopp. d'accord mais euh, imam wax nga ko euh, lu jëm ci li nga xam ne mooy taxawaay bi euh, ku ci nekk yaa ngi dérouler sa sa programme mais bu fekkee ni itam demuñu si procès non non non non Abdou Khadre doguma la ñun mhm. ñun déroulé guñ dara ñun ñu ngi leen di seetaan rek ñuy ñuy tëgg di jekki-jekkal di teg ñu ngi leen di seetaan buñ nee siiw ñu génnee seen i char Mhm. mais nañu fexe nag nañu fexe ngir yàlla ñi nekk ci média bi. Mhm. ak ñi nga xamante ni ñoo complot ñu nar a sacrifice président Ousmane mhm. nañu am ngor ak fit ak jom boo xamante ni ëllëg lu mënti xew nañu jël seen responsabilité su boobaan nañu xam ne ñoom ñoo tëgg lii. te tëgg gi ñu koy tëgg askan wi duñ leen ci seetaan te nag defal nañ leen signal. defal nañ leen référendum taxul ñu dégg. askan wi wëlbatiku nañ ci benn jant boo xamante ni soowul wala fanaanuñ ñu yëkkati trois cent trente trente trois millions yëkkati ko jox ko président Ousmane Sonko ne ko génnal fi nga nekk nga dem saafu xante ak ñi nga xamante ni ça fait presque ba nga jógee ba léegi ñu ngi la bëgg teg ba te teguñu la waxuma la ngay wuti ay militant de wala ngay wuti ñu la wotel président Ousmane Sonko su tëddoon ca lalam toog fii ñu toll nii ñu ne élection yi ñëw na. Macky Sall ku mënti ngemb bu jàkkaarloog président Ousmane moom moom bokk ak moom waxatuma ko. bu mhm. jàkkaarloog président Ousmane ko da koy taxañ teg. Mhm. génn gi muy génn di def déplacement di ñuy tuddee euh, nemmiku tuur. Mhm. am na ñoo xamante ni seen cofeel ci moom mosuñu ko teg bët mosuñu ko jegu mosuñu wax ak moom ñooña lay dem seeti déglu leen parce que ñooñoo ko soxla. Mm-hmm. mais soxla gi ñu ko soxla. ñoom ñu gis ne tey ñoom ku ci soxla militant da ngay def mobilisation da Ndiaga Ndiaye ku ci soxla militant da ngay dem defari t-shirt ku ci soxla militant da ngay dem defari say casquette ku ci soxla militant da ngay dem joxe ji junni wala nga joxe dix mille francs wala nga joxe vingt mille francs comme ni ko amee boo boo néewee doole ba néew doole nga joxe ay trois mille ak yooyu pour nga mën a mobiliser ay nit. Mm-hmm. askanu Sénégal jóg ne tey loolu dafay dañ ñun ki ñuy jiital suñu réew ñun ñoo koy ngemb. ñoo koy encadré ñoo koy dooleel ñoo koy financé ngir ëllëg li ñu bëgg muy projet bi muy defar Sénégal ba mu raw ci Afrique mhm. yow nga jóg ni du am kooka dañ koy fànq dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy gasul dañ koy rend dañ koy toroxal dañ koy tëj ay ci ñu dem d' accord mu sonne danañu mhm. dolliwaat incha allah. d' accord mais imam am na benn coïncidence bu troublant ni ñu koy waxee mooy euh, wax nga ko nemmeeku tour bi ak levée de fonds bi nga xam ne def nañ ko ci ñu gis ne euh, après am na livre boo xam ne Cheikh Yérim Seck génnee na ko parewuñu ci loolu tey euh, juge bi daal di en tout cas doyen des juges daal di. Euh, génne aussi moom euh, confirmation am bu jëm ci procès loolu itam xawul yëngal seen xel tuuti. Euh, man man gis nga soo seetloo am na benn émission dama xamatul yow laa ko defal. Mhm. Sénégal set laa ko defal xawma kan. jamon mhm. jamono xawma daal dama xamul Seneweb la. Mhm. wala dama xamul jàllale la xawma ñan la mais émission bi mu ngi doon wax ci maa ngi doon wax ci ne. jamono bi nguur soosu ngay wax taxawee ni way dama jël recul ci affaire u presse bi mhm. damay dem toog sama ruq bàyyi naa lépp concentré wu ci sama njaboot concentré wu ci sama jaamu yàlla du loolu la waxoon oui da doon kàcc waaw xam nga nit ku ñu ngemb mhm. pour nga xas doomu aadama pour nga dénigrer doomu la deru doomu aadama yàq deru doomu aadama te nga xam ni doomu aadama moo boobu defu la waxu la da ko waajaatal waaj googu la doon def moo taxoon mu lalu mais du problème ay dama doon dem pour encadrer sama njaboot dama doon dem pour seet nu nu nu may nu may def pour mën a jaamu yàlla yu non c'est pas vrai loolu amul résultat yi li mu doon wax ni damay dem lëlu ji génn ci terrain politique bi tey la mu doon lëlu tey pexe yooyu moom la nas mooy pexe sos ak i kàcc di indi loo xamante ni teguwul dara ci dëgg jotiwul ak dara ak a Ousmane Sonko waaw ah, malgré accusation yi mu ko defal li jëm ci wàllu corniche ah, beeg yooyu yu ni mel. mais xam nga xam nga Abdou Khader. Mhm. li gën a neex mooy. li gën a neex mooy. man benn erreur rek la la la la la la la la liir sànq. Mhm. moom bi muy répondre président Ousmane sonk maa ngi nii Maroc. oui liire mais loolu dama jàpp ne man man sama sama gis-gis personnel la man. Mhm. dama jàpp ne président Ousmane Sonko waru ko woon a tontu. man loolu laa jàpp man waru ko woon a tontu parce que du nawleem. Hmm. président Ousmane Sonko li mu li man ci sama xalaatu bopp bu ma ko jotoon man du ko tontu wala bu ma yëgoon ni mu ngi bind du ko bind. Hmm. parce que du ma moom moom comme que capitaine Touré indil na ko sommation. Hmm. moom na réglé digganteem ak capitaine Touré boobu ba pare. parce que xam na ni li mu teg ci capitaine Touré ay kàcc la ay sos la te buñ demee ci yoon bu yoon jëngul loola dana layal lii nga xamante ni moom lay sosal ci président Ousmane ko mais alhamdulilah lay leeral nañ ko parce que réseaux sociaux yi foo ci génn nit ñi taxaw nañ ne ko loolu ngay wax ay kàcc la diw la daloon ci année boobu ngay wax ci corniche bi mhm. te ñun ñëpp fi lañu fekk mhm. li ma waxoon démb laay wax tey mhm. nga taal bu yàlla taal boo ko bëggee boo ca bëggee boo ca bëggee jàmm Abdou Khadre jëlal matt nga sànni ca te toog fee di xool boo ko defulee nag boo ko bëggee fay yow yàlla yoo lay fay te yàlla bu rëddee benn yoon. Hmm. nga effacé mu rëddaat ñaari yoon nga effacé. Hmm. billahi balaa muy rëddaat ñett yoon yow lay effacé ba pare soo a rëddaat. d'accord Ousmane Sonko kenn du ko laal ah. hmm. kenn du ko laal incha allahu. d'accord mais. Euh, xañ na nag su muy xañ na nag incha allahu taala njortu naa ni. Euh, jotuma ko fenn nag jotuma ko fenn waxuma ak moom. Mm. mais su génnul tey ci guddi gi nii nii nii nii su xëyee suba dana wax askan wi parce que il est temps mu ak askan wi nag. c'est ça alors. il euh, est temps mu wax askan te dana wax ak ñoom. kat mhm. euh, euh, question bu mujj imam wax nga sànq mbirum effacé mais yaakaaru leen ni événement yi di am yëpp parce que ñu ngi doon def focus yi ñu ngi doon def focus si nemmeeku tour bi ñu doon wax Cour de comptes ak rapport bi Covid gate bi ak yeneen scandale yoo xam ne nit ñaa ngi ko doon bàyyi xel ñu jékki-jékki rek yeneen événement yi ñëw mu mel ni benn scénario boo xam ne dal nañ koy dessiner rek Américo-Sénégalais yi est-ce que loolu aussi du détourner seen attention wala yéen a bàyyi xel. Euh, gis nga Abdou Khadre man xalaat boobu yenn yenn nit ñi di wax. Mhm. wala yenn homme de média yi di wax. Mhm. man jàppuma loolu gis nga sénégalais. Mhm. sénégalais mënoo fexe ba def ko dara mu fàtte loola. gis nga li ñu rangale di ko def. François Mancabou. ñeneen ak ñaari gendarme yooyu fi seeyoon. yeneen ak yeneen ak yeneen yi fi xew yëpp. gis nga ba ci nit ñi daan taal seen bopp buntu biir palais buntu pale ba ci accident yi xew bërki démb ba ci ba ci ba ci député yi doon trafiqué ay passeport diplomate ba ci ñi nga xamante ni dañoo jëloon ay faux billets di ko jëfandikoo yéen ngeen yaakaar ni loolu ñoom événement bu xew dañuy jël beneen bu gën a diis teg ci koom ba nit ñi fàtte ko ñu ak ñu ne nit ñi fàtte nañ ko avancé nañ dem déedéet nit ñi fàtte ko dañuy xaar bés hmm. te bés ba bu ñëwee dana mel ni ci ñoom tuq su bënn saañ ba réer sénégalais du fàtte lu du fàtte mukk mukk ci àdduna lii xañ goo ko xañ liberté xam nga tey jii gis nga ñoom yàlla da leen a won ni jéppi na leen ba pare te xamuñu ne yàlla jéppi na leen xam nga tey bu fekkee ni dañ ne askan wi dañuy dañuy dem déposé pour yëgal préfet ne ko dañu war a def marche dañu war a daje place de l'Obélisque pour wax li ñu naqari mhm. mais Abdou Khadre ñu xañ askan wi ci dépôt boobu ñu def ne du fi amee parce que dañu nekk ci ay travaux te te quatre jours avant société civile bi dem nañ déposer ñu nangul leen loolu léegi nga ni ñii ay parti lañu wala boog samay opposant la yu mat opposant duma leen ko nangul waa léegi Abdou Khader taal bu taal bu taal bu të tàkk fu nekk lañ koy uppee taal bu të tàkk fu nekk lañ koy lañ koy xam ne ay mat mm-hmm. bu fekkee ni bu ñu laajee suñuy droit ñu xañ ñu suñuy droit dañuy marche ñu ne duñu marche dañuy def live ñu ne duñu def live dañuy tweet ñu ne duñu tweet dañuy dañuy poster suñu xalaat ci suñu page Facebook ñu jël ñu tëj ñu kaso waa léegi ñu ne léegi pour ñu jàmbat ko ba ñëpp dégg ko génn leen seeni castorol ak seeni kuddu cumwaar ak seeni cin ngeen tëgg naa fekk yi jóg naan day yëngal rab yi Sénégal ak moo waral accident yi dañuy kàcc waralul accident yi. amul lien ak aada. imam waay yow mais dara amu ci. Abdou mhm. Khadre gis nga. Mhm. kañ la ñu tëgg casserole yi depuis trente et un décembre. la accident yi xew ñoom ñu gurgur seen seeni nit dem Tambacounda. Mhm. génn Tambacounda defagul ay waxtu lu mat juróom fukki nit dafa accident dee nañu seet dem gañ dem Tambacounda lan la ñoom ñu gurgur seen i nit. dem Louga yàgguñu Louga génn. lu mat vingt xawma trente personnes dee fa nañu seet seen dugg Louga googu ñu dugg luga te askan wi taxaw nag ne leen alt doy na comme que fu ngeen dugg musiba am fa kon ana seen gëlëm yi ñu doon tasaare di ko sa di ko saraxe ci département yi. kon loo jàpp ne loolu la imam Sénégal. Mhm. Sénégal. billahi ku ko bëgg a yàq yaay yàqu ku ko bëgg a yàq yaay yàqu. waaw parce que fañ ko defaree. juddoo wuñu foofu. màggewuñu fa nañu arrêté yi ñuy def. d'accord Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane kenn du ko sànq. te ku ko songu sànku. insha allahu taala maa ngi maa ngi maa ngi à travers seen seen kii bi maa ngi bañ a téye bi. oui euh, dama war a am euh, daje bu may dajeeg léegi ak sama benn wëllëre boo xamante ni. Mhm. programme yi ñu war a def demee incha allah. d'accord ñu baale rek kon nga tàggatoo. Ah, ñu ngi leen di sant di leen gërëm à mhm. travers. Euh, seen réseau bi. Hmm. di nuyu ñëpp di wax ñëpp nag nañu taxaw temm amul nëbbatu gis nga mbir mi nañ ko ñeme. Hmm. nañu taxaw temm waaw ci zahir ak ci baatin nag ne kenn du laal Ousmane Sonko ku ko bëgg laal jaar ci suñuy néew ba pare soog ko laal loolu rek laa doon wax salaamaaleykum wa rahmatulah.